am yeneen combat yu mbokk yi ñaari mbër yaa ngi noonu ci diggi géew bi maa bi dox ci diggante Paul bu Daaru ak Xeeru Ngor numéro 2 Boy Dakar maa ngi lay nuyu ma ne ko Boy Dakar maa ngi lay nuyu maa ngi sa léegi waaye maa ngi ca làmb ja dimanche 5 juin il est 19h35 ba sifflé coup d'envoi Xeweul ko mbokk yi moo ñëwal ginnaaw Paul bu Daaru la ñu jàkkaarloo Paul bu Daaru am na lu muy jag ci loxo ya journée Djibson production fëgg na ca ngem la yéena mankaañ ya laay laay la laa eh. Eva maa ngi sat maa ngi bu Daaru ak ki nga xamante ni mooy Xeweul Ngor numéro 2 ñoo ngay lewaatoo Xeweul Ngor numéro 2 moo ñu féetee à Paul bu Daara moo ñu féete à gauche xëy léegi eh, xale yaa ngi doon ci digg géew say tànk eh, xëy nga door na ko léegi xëy nga na ko kuubu dal xëy nga sàmmal ma si tànk xeex xëy nga bu Daaru ba doomu daan du ci am ba doomu daan daw na ko jël eh, waa njool mi xalaat mer waaye waaye xëy xeexo nga waa ngi noonu laay lay laa ma war yomb jàmm fu mu xëyal du fa gont bu daaru nee na ma juree par force xeexo nga waxoon na ma bu daaru xeeru Ngor Paul bu Daaru waaye xeeru sàmmal ma say tànk sàmmal ma say tànk xeeru ngay xeex xeeru Ngor Paul bu Daaru xeeru Ngor sàmmal ma say tànk Paul Paul Paul Paul wala boog Paul daan na xeeru Ngor daan na Paul bu Daaru waaw xoolal ma lii <laughs> xeeru Ngor daan na Paul bu Daaru appel la. mais lan la. maa ngi réew mi. parce que Serigne Saliou Mbacke. Maguette Ndoko Maguette Ndoko. demal. jékki-jékki. xew li lan la. salaamaaleykum. maaleykum salaam. man dama am ci si làmb dëgg wala dëgg. ah. leer na wala leerul. bu ma jox mbir yu mag damay bàyyi làmb. 16 combats la am 16 combats. 12 amul ku ma damay bàyyi. grand combat bi ak ak kii Coly Faye 2 ku daan ñu bëre. ma la so ak Franc. daan nañu bëre ñoom ñëpp laay duma benn par benn ba ñu jeex tàkk comme soxna ma fekk ngor